lu fay anti guérisseuse soxna na fi fàllu fal euh, di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alquran euh, ndox suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci au miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fal yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fal ma nga ci jokkoo ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 551 34 82 wala nga woo ko ci 77 033 37 83. ba Mali daa mel ni ki ma doon wér ngi nii taxaw voilà yaakaar naa ne gis nga <laughs> xam nga a ci puutu buur da nga doon làqatu far yàlla dajale ma ak ci tali bi wii ma balaa maa commencé taxal micro bi ba pare. ñu waxtaanee ko am. non taxal taxal yow taxal pare ñu waxtaanee ko rek. ci sama gars yi waaye ci lu ngeen ne. xam nga ne mënoo maa réew ci réew bi de bañ maa jox sama ndóolal jar na lii. waaw lu ngeen def côté bi. lu def côté bi. lu ñuy def côté bi. Mhm. ah ñëwoon ci réew mi rek ñëwoon ci réew mi rek. mais namu naa leen. ñoo la raw ñoo la raw naka coonee. lan moo xew. sant yàlla sénégalais yi la nam ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax laaji dégg daaj ah di koo xamante ni comme ni ma ko waxee rek dootuñu ko présenté sénégalais yi ndax it taxawaay bi mu am ci réew mi ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey ci yoonu Serigne Touba bi rawatina kër Cheikh Béthio Mame Bamba bi ñu koy bëggee bu baax a baax a baax ñu ngi lay nuyu di la déwénati ah, maa ngi fay di la ñaanal jàmm mm-hmm. yow ak ah, Mame Ali di ko ñaanal ah, képp kuy sénégalais rek mm-hmm. di ñaan yàlla leen jàmm ju bëree bëree bëri si gii ñu jógee mhm. di ñaan ñëpp yàlla na leen yàlla suñu borom defal jàmm ju bëree bëree bëri mhm. mhm. ku ne yàlla la suñu borom defal jàmm yàlla ñu ko bokk ñun ñëpp mais sénégalais gëj nañu gis nga dem toog France rek làqatu waa xam nga man sama tukki du yàgg presque quatre jours cinq jours ñëwaat des fois nag dama dul yàgg fii waaw du ma yàgg bitim réew yow kenn xamul fooy taxaw waaye dem ak dikk la rek mais Sénégal noonu la àdduna moo demee noonu des fois foo xamante ni fa jamono tollee Mhm. da ngay bëgg di bouger rek di dem ak di ñëw. Mhm. soo ko deful léegi ñu tibb sa tànk. Mhm. jamono toll foofu jamono toll foofu. muy kàddu yu am solo waaye comme ni ma ko waxee rek ah. suñu xarit ba nga xamante ni tey. Euh, bu dara xewee ci réew mi rawatina mu am sa côté. Euh, ñi lay soxla dina bëri waaye suñu digganteeg yow moom dépassé na fu ñu lay soxlawee di la woo dama la. comme ma la def nii waaw da ngeen maa ko de man wax ne fii lay jaar <laughs> sax. non xam ah, mi damaa xam yoon yi gars yi di jaar. <laughs> mais Sénégal yëpp xam nañ li nga xamante ne tey jamono ji moom la ñuy waxtaanee. waaw muy diggante Omaro ak ki nga xamante ne moo di Sidi Diop. Mhm. ku ne dégg daaj ne Omaro ngeen yàlla ngeen yàgg a bokk jotaay. yàgg bokk liggéey yàgg bokk lu ne. Mhm. tey ku ne Omaro rek ne dégg daaj. ñu gis tey mu génn am benn développement xam révélation boo xamante ne tey def na ko yëkkati ay kàddu ku ci ne am noo ko analyser. Mhm. dégg daaj omoro mën naa ne su may gis dégg daaj omoro laay gis ci moom. tey nga gisee li nga xamante ne sa frère sa xarit def na ko génn wax ak sénégalais ci Sidi Diop. waaw xam nga euh, dafa am loo xamante ni euh, sénégalais ci boppam dañuy posé benn question bi. Hmm. ku ne xam ne ne Omar sama lépp la. Hmm. waaye Sidi moom sama lépp la ndax ñoo bokk Sëñ Saaliw te ñoo bokk lislaam ñoo bokk nekk Sénégal. Hmm. ñoom ñaar ñëpp ay nit ñu baax lañ. man dama mal placé wu ci di wax naan kii ak kii moom moo nangam sangam. muy Sidi Diop muy Omar Wa muy Subatel. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te xam naa ne mhm. kenn jigéediwul sa moroom ndax bi biñu àndee di liggéey ba léegi mhm. gis nañ ne ñoom yëf ya ca kanam la jëm mhm. man nag damay koo xamante nii euh, nekkuma ci showbiz man ci tagg yonent bi laa nekk ci lislaam nekk euh, ci beneen côté bi laa nekk kon wax dëgg yàlla xawma ba tey showbiz nu muy dundee waaye ñoom kenn ku nekk ñoom xam naa ne saal sa xol rafet na ñoom ñëpp ay borom baax lañ ay nit ñu sell lañ ay nit ñu yiw lañ xëy nag des fois bañ a làmmiñ mën nañoo bañ a Euh, mën nañuy laalante daal mais ay ñu baax lañ. tey su ma doon ñëwaat ak yow tuuti rek. ci li nga mhm. xamante ni tey moo di début Omaro ak Sidi Diop ndax ni ma la ko waxee rek. ku ne dégg ne Omaro. Mhm. ñoom ñaar seen début seen ànd lan nga ci mën a wax sénégalais. ak doon dundee. ànd bu rafet la. Hmm. ànd bu neex la ànd la boo xamante ni tey eh, sénégalais yëpp ñoo ci ñoo ci bëgg. Hmm. parce que engagement euh, la Omaro di jël ci ci nit. Sidi tamit nit la koo xamante ni boo jëlee ci moom engagement. Hmm. Euh, doo ko réccu parce que nit ku baaxal ta mën na woy yàlla am na talent bu mu def ci mhm. def ci moom mhm. kon ñoom ñaar euh, li leen boole dafa bëri bokk na ci seen wayjur yi bokk na ci Serigne Saliou bokk na ci tamit ay nit ñu bëggante te yàlla tax mhm. bu Sénégal lay jàppee ne ñii dañoo réeroo wala ñii dañoo bañante li ñuy def xamuñ ko non ñaar man jàpp ma réeroo am na parce que Omar xam naa ci moom xol bu rafet boo xamante ni. Mhm. du koy bañ nit du koy bàyyi nit. Mhm. Sidi xam naa ci moom xol bu rafet boo xamante ni du koy bañ nit du koy bàyyi nit. Mhm. mais des fois xam naa ñi ci suuf ñooy jaar di mel ne kuy jaxase ak yooyu rek. man jàpp naa ne jàmm rek moo fa am. waaw kaddu yi nga xamante ni tey Omar yëkkati na ko. naka nga ko jàngatee. fan yii nag yoru moom téléphone. wax dëgg yàlla déglu ma benn kaddu. boo xamante ni tey eh, déglu naa ko sama note bi. tey bu Omar toogee ne Sénégalais Sidi Diop dafa war suba teel. Sidi Diop daf ko bett. Mhm. Sidi Diop day wër di yàq nderam di ko toogee. Mhm. mu metti ko ba Omar Tour xéewal jooy. waaw ah. mais ma jaaraat ma nettali ko rek comme que yëgoo déggoo. lii kan ma ko wax Omaro moo wax Omaro moo wax lii ci làmminam du lu ñu sos du lu ñu inventé. da rajo wala ci télé wala la ko waxee site internet Sénégal 7 ñu nuy leen au passage ñoom ñoo am entretien bi. mu toog léegi bàyyil man su ma seetaanee wax ba déglu ko. Euh. dinaa leen woo ngeen ñëw ma wax leen sama xalaat. Euh. mais seetaanaguma vidéo boobu. Mhm. parce que ci tabaski lañ jógee te ku ne xam ne ne julli gi. Euh, ren xar seeroon na waaye yàlla suturaal nañu ba. de gis nga ne ko dafa bañ wax ak eh, sénégalais non non sax. loolu dafa am loo xamante ni. boo ko seetaanul euh, gisoo ko rek doo ca mën a communiquer. Mhm. te ñoom ñaar ñëpp ay nit ñu baax lañ. Mhm. muy Omaro muy Sidi muy Wally Seck muy képp ku mat doon xam nga man jàngkat laa nabiyan laa damay tagg yonent bi. te ji boo ne woon. exemple Sadio Mbaye daa am problème ak diw wala diw daa am problème ak diw ñu nekk ñoo xamante ni ñoo bokk lu ñuy yëngu mhm. dinaa ci sawar a mën a wax wala dara mais côté boobu su ma ci waxee rek dinaa juum parce que ah, domaine yi bokkul waaw domaine yi bokkul mais comme ni nga ko waxee xam nga mm-hmm. ànd Sidi ak ak ki nga xamante ni moo di Omaro mm-hmm. tey bu Omaro xëyee yëkkati kàddu yooyu ni Sidi daf leen war waaw Sidi daf ko bett Sidi day wër di yàq ay dara moo tax man la bàyyil ba ma seetaan vidéo bi bu ma seetaanee vidéo bu boobaa soo ñëwee dinaa mm-hmm. ci andi sama analyse mais yàlla xam na ne seetaanuma vidéo parce que euh, ma woon téléphone simple laa yoroon xam nga man nag période bu nekk ak yàlla suñu borom ci may xiir boo xoolee moment bii li ma ëpp li ma doon utiliser moom mooy Euh, téléphone euh, simple. période tamit dama déconnecté wu. Uh-huh. mais instant bi jëlaat naa samay téléphone bokk na ci li ma gënoon andi fii sax. Uh-huh, maa ngi sama ñaari téléphone téye su ma seetaanee li ngeen wax après man dinaa leen wax lan moo ci sama xalaat waaye xam naa ne. Hmm. ñoom ñaar ñëpp ay nit ñu baax hmm. te ki leen yàlla booleel muy Matar Diop Subatel. Uh-huh. nit ku baax la te nit gënu ko. nit la koo xamante ni xol lay àndee ak nit. jëfam ju baax lay àndee ak nit. parce que euh, bokk na ci. ñu njëkk a yëkkati alalam. Mhm. investir ko ci jàngkat. Mhm. investir ko ci koo xamante ni ta tagg yorante bi. Mhm. ñun nii maxu façon jàppale gu nekk rek. Matar Diop Soubatel jàppale nañu ko. kon Matar moom bu choisir Sidi ak Umaru. ba nekk ak ñoom benn label. yaakaar naa ñooñu ay nit yu baax lañ parce que yàlla ñu baax ñi rek lay boole. mais jàpp ma ne euh, kenn ci ñoom euh, nii la nii man xol bu rafet laa xam. waaw voilà te loolu la yàlla bindee muy Sidi Diop. muy Matar muy nangam sangam. Uh-huh. voilà man loolu la xam daal. lool nga xam. ci ñoom. Uh-huh. nit laa koo xam ne bu fekkee yéen. Hmm. li tax ngeen koj ma fii mooy xaar ma wax safaan kon <laughs> yàq ngeen seen koj bi dama yow tase nag. parce que dama doon dox seen dox seen soxla ñu mbëkk. dama doon dox seen ma dox seen soxla ma xàmmee sa uh-huh. ko ma ma ko wax ak moom. dëgg la mais xam nga ne yow nga. bilaay bilaay bilaay mais ni nga xam waaye xam nga. raa ngay àdduna bët la. te coow laa ngay mën xeyam. Eh. moo tax fii eh. ma rafet rek na rafet waaw uh-huh. na rafet uh-huh. damay nit koo xamante ni wax lu baax laa xam uh-huh. jëf lu baax laa xam barke yonent bi doo mos a dégg ñun la dégg daaj mooy wax lii jëmee ko ci diw déedéet man lu baax rek te lu ma la wax nag dëgg la ci man muy Omaro muy Sidi billaahi ay nit ñu baax la nit gënu leen muy Wally Seck mii nit ku baaxal la nit gënu ko ba xoolee Wally bi muy débuté nekk West Far ñun dañ daan ñëw foofu di ko fréquenté barke yonent yàlla Muhammad mhm. daan fa nekk bu ñu daan toog foofu ñu ne ñoom Moussa mhm. ñoom Fallou Dieng daan toog di waxtaanee Sëñ Tuubaa ak xasaayid di waxtaanee mhm. lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri si xam ne gars yi eh, métier yi wuute rek mooy kii day yëngu fii kii yëngu fii mais gars ñëpp ay nit ñu baax lañ seen xol rafet gisuma ci ku bon gisuma ci koo xamante ni war naa tax may taxu di waxee neneen ay nit ñu baax lañ muy Waale muy Sidi muy Omoro muy ba mbaa Mbayo muy keneen ak keneen ak keneen muy El Hadj Keita El Hadj Keita ngi bërki démb uh-huh. dafa am fu ñu daje euh, mu am lu mu jënd waaye keroog li ma doon jënd man moom moo ko fay moom moo fay li ma doon jënd ci xaalisam loolu nit ku baax la mel uh-huh. gars yi ay borom baax lañ a yem baax lañ muy siidi mi moo fi wootee ci koor gi dafa bàyyi lépp lu mu jàpp ñëw uh-huh. ca woote ba loolu nit ku baax rek moom moo ko man ah. Omaro woote boobu këram lañ ko defe woon Mhm. mu yaatal ñu ubbi këram loolu tamit nit ku baax rek mhm. moom moo ko mën moo mën loolu gars yi ay borom baax lañ mhm. nañ bàyyi gars yi ñu liggéey jumte la daal ak erreur daal nga jàpp ne moo ne ci diggante ay borom baax gars yi ne ci suuf di kii rek mais ñoom ay borom baax lañ te label bi ñu ku ñàkk fulla muy Matar Matar ñàkkul fulla ku am jom la te ku am fulla la man nag nit laa koo xamante nii maay may sama bopp kenn mayu ma maay dimbali sama bopp kenn dimbaliwu ma maay teral sama bopp kenn teralu ma ginnaaw yàlla suñu borom mi may lu ma wax ci nit dëgg la du ma wax ngir bërëm lu ma wax ngir alal du ma wax ngir bëgg lu ma am kenn mosuma gis fenn ma taxaw di kaaje kenn gisuma ma taxaw di taalal kenn loxo lu ma am rek lii moom ak may liggéey ak ñaq kon lu ma wax ci nii dëgg dëgg la. ñii baax lañ. ay nit ñu baax lañ. waaw macha allah xam naa ni loolu kàddu yu am solo la yoo xamante ne xëy na mu war ñu seq ak seq ko ak moom waxtaan ci li nga xamante ne jamono ji moo xew ci réew mi di actualité. Hmm. mu xam ci ñoom ñaar xam ci ku ne mën a wax ci ku moo tax nag. ma def nii ak moom waaye dinaa ko fekkaat këram ginnaaw ba mu seetaanee li nga xamante ne moom la bëgg a dégg moom la bëgg gis ci li nga xamante ne moo xew ci coow li mhm. boobaa dinañ amaat ak moom jotaay mu gën a leeral sénégalais gën a waxtaan ak sénégalais ah mais màggal gi léegi mu yegsi de am nga loo tàmbaloon sénégalais maa ngi waaj lu garaaw ah. bind naa son yi ba noppi uh-huh. enregistré ko studio rek moom moo des uh-huh. bu ko enregistré bu dara desul dul ñu déglu ko dinaa leen woo ngeen ñëw incha allah cof ci li nga xamante ni liggéey naa ko uh-huh. man maa ngi tëju rek liggéey loolu nag dégg naa ko dégg daaj des fois day nekk showbiz te nit mosuma gis ci affaire soo waaw ah. man li ma gis mooy sama liggéey da ngaa yaatu daal travail nekk ci li ma nekk di xaar yàlla suñu borom daal voilà parce que wërsëgu àdduna tamit bul la te ku sa numéro génn nga jot ca wallaay dëgg nit bu dundee ba déwén rek. Mhm. dina wan na ba déwén. Mhm. moo tax ku yebu góorgóorlu gis nga Sénégal. Eh, nit bu dundee ba déwén. dina wan na ba déwén. wallaay dëgg la gis nga Sénégal yaatuwul <laughs> su ma jumul 15 la xaw ma 14 xaw ma 17 raison mhm. Sénégal 14 raisons la. wala 15 raisons wala 16 wala 17. kon yaatuwul. su ma jumul yi benn la ci. kon ku góorgóorlu ba tabax tabaxal ku góorgóorlu ba étage étagel. ku góorgóorlu ba war oto waral. wërsëgu àdduna bul la te ku sa numéro génn nga jot ci. jom ak liggéey rek mooy maye te man loolu laa gëm muy liggéey travail nekk ci sama liggéey. Mhm. wéet bind samay test. Mhm. yaa ngi dégg baax. Mhm. voilà bu ma amee samay business ndaw dem business ko. des fois mbirum yeewu woo ma. ne ma alaaj dégg ñëwal ma ñëw tourné li may tourné émission pare dem jàll ci leen man liggéey laa gëm rek. yi yi gëm ay détails ay coow ay wax man man nekkuma ci yooyu. man liggéey rek. liggéey voilà yàlla na jàmm yàgg mbégte nag kon ak kontaan dañu jàkkaarloog yow tey ci ci Sénégal Buzz 221 waaw ndéwnal a joxe ñaata ngay joxe internet bi yaa ngi gis ñaata ngay joxe <laughs> ah, kon dinañ coupé ndax nit du suturé la dañ ko koy nangul mbokk di am mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax ci leeral yi nga xamante ne partagé na ko ak sénégalais waaye di ko bu baax ah ndax it ni mu wax rek moom noonu la mel ndax it mhm. nit ku baax la ku baax rek ay gis baaxu moroomam alaaj dégg daaj taalibi baax di la jox dig daje ci beneen numéro. bëgg naa jërëjëf sama xol sedd na. Louvain anti guérisseuse soxna na fi fàllu fàll di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alxuraan ndox euh, suuf waaye yamul ci loolu yow mi bëgg bayra yow ni nag dañu laa sànni kortu góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fàll euh, yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fàll ma nga ci cité Aline euh, Golf wala nga jokk